mbokk yi la doon metti ci biir écurie bul Falé daal di nay feeñ la tax bul Falé tas ay mbóot yu bëri daal di nay génn gannaaw bi nga xam ne kii nekkoon na seen entraîneur di Pape Ndiaye ñu ko woowee Paco moom waxtaan bi mu sekk ak suñu naat naataangoo di Iba Kane ën na ay leeral ci lu yaatoo yaatu yaatu ana lan moo tax écurie bul faale tas ak fi mu nekk nii fan la ñu toll ci diggante euh, nit ak nit maanaam kóllëre moom Pape Ndiaye nee na kóllëre amatu fa te kii nga xamante ni moo nekkoon leader bi te moom moo gënoon a siiw di amee ndaw Tyson nee na daal moom daa fexe. ba tas diggante moom ak nit yépp yoo xam ne ñoo nekkoon ci biir écurie bul faale te it nee na Mohamed Ndao Tyson la ko neex mooy yàq diggante moom ak euh, képp koo xam nekkoon nga ci écurie bul faale moom sax Pape Ndiaye nee na au début jéemoon na di recoller les morceaux maanaam jéema waxtaan ak Mohamed Ndao Tyson pour ñoom ñëpp ñu daal di dajawaat mais nee na daal kii di Mohamed Ndao Tyson la ko gënaloon waaye mooy mu daal di képp koo xam ni bokkoon na ci moom te it nekk ci écrit bul faale jël yoonu boppam maanaam ne menteng moo tax kii di Mohamed Ndao Tyson pour gis ko sax jafe na rawatina ci làmb ji moom Pape Ndiaye ñëwaat na ci lu gën a sori ci diggante moom ak yeneen mbër yi nekk ci Pikine maanaam ñi nga xam ne dañoo siiw nekk écrit bul faale bokk na ci bi ñu ko laajee ci Eumeu Sène moom mi ngi koy dégg wala ñu ngi gisante mu ne mukk kookoo gën a piir maanaam kookoo gën a yées Mohamed ndaw Tyson na mag ja def rek noonu la daal di def moom itamit daa jël yoonu boppam Pam Ndiaye nee na bi muy nekk seen entraîneur sant euh, millions yi nga xam doon nañ ko dégg ci Mohamed Ndao Tyson nee na dërëm mosu ko cee laal mosul am pourcentage mbër yi musuñoo bëre ba làmb ji jeex ñu ñëw ne la am coach laala lii te it entraîneur yi nga xamante ni yàgg nañ di wax ne mbër yi war nañ leen gën a jox cër ndaxte ñooy bàyyi seen nelaw bàyyi seen njaboot yeewu fajar teel ngoon si ñu nekk ak mbër bi nga xam mooy laal ay cent millions te ñoom du gis dara kon entraîneur yooyu noonu tey jile Pape Ndiaye ën na ci ay leeral rawatina Mohamed Ndao Tyson ak kii di Eumeu seen neen na déggu leen du leen gis fenn maanaam nee sax ñaar ñoo gën a tax lii di écrit bul faale daal di tas te noonu lañ ko bëggee woon nee la mu gis mooy ba mu demee ba ci biir nee bi mu doon ànd ak ñoom du koppar moo tax mu doon ànd ak ñoom maanaam nekk ak nit defar leen ba ñu dégg leen fu sore waaye nee na ba mbir yi xewee affaire ya tas dafa jàpp ne kon ñii amuñu woon kóllëre dañ doon nëbbu maanaam di jël nit ñi di leen utiliser pour siiw am koppar bëri bëri daal leen di beddi moom Pape Ndiaye nee na looloo xew te wax na ci coow bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante Eumeu Sène ak Ata problème mu tracteurs yi nee na loolu noonu boo ko dajalee coow lool ba mu demoon ba tribinal nee na coow li dafa concerné woon écrit bul faale nee na am na lu ci xew am na ku ñu kon condamné am na ku ñu daaneel ci li nga xam ne moom mooy àtte boobu nee na nañ dem xool kan la. te it wax na leneen loo xam ne ci yeneen mbër yi nekk ci écurie bul faale neen daal bu ciy dégg juróom la ciy dégg waaye ñeneen doo ci dégg kenn Mohamed Ndao Tyson bi mu koy gëj a gis mois de juillet deux mille vingt et bi soxnaam gaañoo ñëw na daal jaale ko nee na it laal na kopparu Mohamed Ndao Tyson si deux cent mille oto moo amoon problème mu wax ko mu ne ko yoruma xaalis waaye dinaa la jox deux cent mille neen daal deux cent mille yooyu la mës a lekk ci Mohamed Ndao Tyson waaye du beneen mbër wala boog mbër yi laal cent millions ñëw jox ko un million mbaa deux millions nee na Pikine ko laal ci ay combat nee na daal fi mu nekk nii écurie bi tas na tasar te ñoom ñooñu nga xam ñoom ñooy leader yi ñoo ko bëggoon ñoo bëggoon tas écurie bi bi ñu demee ba jekk lañ daal di beddeeku wan ñëpp ginnaaw écurie bi tas ku dem kon Pape Ndiaye di coach écurie bul Falé moo wax lu ni mel mu doon waxtaan ak ak ki xam moom mooy Ibakan suñu naataangoo kon indi na ay leeral ci wàllu boobu ku bëgg ay leeral tribinal ba àtte bi nga xam ne amoon na ci diggante Eumeu seen ak atta coow tracteur yooyu nee na na nga dem laaj leen ñoom ñaar ana naka la mujjee kon ñii di coach yi jar nañoo bàyyi xel ci écurie yi waaye tamit kóllëre bi ñuy wax ci mbër yi war nañ koo gën a féddali gën jàpp ñii di coach yi ak seeni staff ndaxte. dafay jeex gis nañ fi ñoo xam ni wan nañu ginnaaw te gannaaw sport bi couleur gi war naa wéy ndaxte ñi la jàppale ba dara doonul woon dara nga dem ba am ay cent millions moom Pape Ndiaye nee na kooku war nga ko fonk bu baax waaye du koppar moo leen boole woon au bi